hey samay xarit dellu si na ndax man histoire yu neex yi rek laay wër ratanga ngi toj rajax du yéen a ngi gis ni assistant sonné waaye Corse ak Laasana tamit mat na film docteur Moulay moom def centre bi niveau 3 moo ko teree nelaw ndax loolu dana am waay cay roko ba ak jabarkatam bii faj MAD ba léegi da ngeen a bëgg a xam fu muy mujj ay ca def leen ni man maa ngi taal sama rajo waaye c'est la vie te te te a ratanga waaye ku doof juróomeelu épisode ak ñeent mettitu néegu sëy tey ci suba tamit gisuma assistant ba mu fi waxtaanee xale yi ba léegi ñëwatul ci centre bi liggéey si waa këram sax wax nañu ba sonn waaye mënuñu koo nanguloo ni reyul Aminata Korsa moom jàpp na ni li mu bëggoon am na ko ndax assistant sage femme bu bees bi bëggoon a jël place am dem na ardu bu koy waxtaane sax day moom
garab yi ñuy jënd ci mbedd mi baaxul ci suñu wér-gi-yaram foo mu dàq
bi may ubbi sama buvette ci la magaar agsi nuruwu maa ko guddeem neex dara tulli dafa soxlawaat xaalis
putain xaalis bi nga dencoon anamu li nga dajale anamu ana xaalis bi nga rënk magaar yow lii lan la nii jox ma xaalis bi nga denc jàppale ma ni daal di seew dama kaa soxla ndax dama démissionné si beex ba lan fi nga ko defee nag la baaxee imbécile
da nga soxla xaalis bi pour sa gel yi xam naa loolu la tëjal ma sa gémmiñ coow ngay ut te mënumaa ñàkk xaalis te xam nga ne say mbokk a tax ndax maa leen yor
tulli tulli lan ngay def nii tulli bàyyil samay bijoux bàyyil sama loxo tulli bàyyil sama loxo bàyyi samay bijoux.
tulli jël na boîte bijoux yi sotti lépp ci benn mbuusu plastique ci taatu boîte bi la fekk xaalis bi magaar dajale woon mu jël lépp luy xaalis ak takkaayu jabar ci
ngir yàlla lii rek laa dese lu ma sa maam bàyyeel.
magaar mer na
bàjjen lii de moo am biig sama appartement tulli fii la jubal si maa ko topp ndànk mu xaar ba Korsa mel ni lu yàqamti ñu wax ci suuf ndànk te xamuñu ne que maa ngi làqatu ci ginnaaw benn zàng di leen déglu bàjjen mën naa waat ni mënoo gëm li ma dégg
eh Corsa xaar ma yow.
yow loo bëgg xanaa xamoo maa ngi consultation.
nga jaayal ma bijoux yi laa bëgg faamu boos yëpp xam nga leen lan waaye yéen li ngeen ma toppee nii tey jaay ay bijoux jàmm yow man sage-femme laa damaa bari liggéey dimbali ma.
bul ma tuur la ndëm soo bëggee ñu wax ci yeneen waar yi ngay dóor ci biir centre bi li ngay trafiqué it ñu wax ci ñaata kit d'accouchement ngay jaay ainsi eh yow da nga dof wala lan.
jëlal bijoux nga jaay leen taf-taf dama yoreel xaalis ay gars yu soxor non mais bon waa indil wante nag.
bul ma jéem a tur la ndam jaay ko taf-taf soo ko deful su ma kuulee di nga daanu leer na
waaw
leer na baax na ok
bàjjen lii de mooy sama àdduna foog ma gis Korsa
fii ci Ratanga ku nekk ak sa problème bopp docteur Moulay moom mi ngi jéem a tase ak patron yi ngir dossier centre bi jàll li ko gën a jaaxal nag mooy dafa tardé rendez-vous bi mu amoon ak comité de gestion bi
madame Sangaré waaw da ngay dox tey lu xew man damaa def noonu dinaa la fekk ci hôpital ba bu ma accès suñu rendez-vous ba laa jëm sax de waaye sama chauffeur bi damoo panne essence bu ñuy dellu ma koy dàq sama jëkkër laa doon woo nii pour mu yónnee ma beneen oto non mais jarul nga koy déranger yéegal ma déposer la hôpital ba laa jëm nii merci docteur ci li may yóbbaale
lii moo gën a normal xanaa duma bàyyi ngay dox di dem hôpital ba wala nga naan yaa ngi jël taxi
Bien, asseyez-vous.
dangaa mel ni dangaa jaaxle docteur lu xew man de damaa sob ba dee baal ma de maa ngi dugg ci sa vie privée
Madame Sangaré dama bëgg centre bi dundaat defaraat lépp ba mu gën a méngoog jamono ndax waa maire bi nangu mu jàll ci niveau 3.
xalaat bu rafet nga ma wax docteur Moulay waaw waaw waaye nag damaa toog ci nen ndax kilifa yi tontooguñu ma ba léegi te damay ragal ñu bañ en plus damaa bañ a jël doomu monsieur Tabajo bi kenn ci doomu kilifa yooyu stage fii.
dangaa gis monsieur Tabadio oui gis naa ko kañ invité na ma sax këram nga ne
moom daal dañoo tase nii rek mu lal waxtaan. tànk ci suuf jaan ci suuf dinañ ma sa tase loolu la olof wax.
ah docteur Moulay ah lii damay surprise dégg looy def fii docteur bonjour monsieur Tabadio ci bureau bi laa génne mais dama yàkkamti de dama am rendez-vous ak yenn ci kilifa yi nga bokkal commission bi yor hôpital bi tardé naa sax.
waaw waaw dégg naa ko docteur dégg dégg dégg naa ko eh kaay kaay ñu ànd fii rek laa dégg xoolal dina laa xelal nooy waxee ak ñoom ñooñu xam naa leen bu baax.
jërëjëf wante vraiment vraiment dama yàkkamti.
mun naa leen docteur waaye kaay ma présenté la sama doom Idi.
non vraiment beneen yoon ndax fi mu nekk nii foog ma gaaw.
docteur say njëriñ la de dama la bëgg a dimbale rek xam nga ni man ku am solo la ci prospérité commission bi ah allez kaay dugal idi am diplôme bu yàgg ndax mën a jàng xam naa ne moo nar a sauver réew mi ëllëg docteur jàppal turam ndax bonkal la war a nekk ëllëg
am naa ci yaakaar sama doom ji gestionnaire bu baax lay doon pour sa centre dafa bëgg affaire gestion médecine ah Eddy ah fan yi moom embauché wuñu mais bu ñu amee poste rek mën naa déposer candidat ah docteur docteur xoolal jàppal ne am nga gestionnaire bu baax soxlaa tur candidat ah monsieur Tabadio d'accord nañu docteur Moulay ah
ah docteur Moulay kooku mooy monsieur Tabadio xalaatal proposition bi mu la def ci doomam waaye madame Sangaré booy bi nee na gis na kuy faj sida te du gis malade bi sax kooku nag mooy doomu Tabadio fils à papa la ku koy dimbali da ngay fexe ba mu sori papaam boo ko jëlee ci centre de santé bu Ratanga bii di nga ko jàppale bu baax
xanaa suñu xuusmaa ñàpp lay nekk
docteur may de la dinaa wax sama jëkkër mu weñ loxo commission bi ba sax ci ministre de la santé
merci d'avance waaye xalaatal doomi Tabadio jël ko mën naa accélérer mbir yi de yow boroomi pexe nga de madame Sangaré léegi nag xam naa lu tax monsieur Sangaré àgg fii mu toll ci sa wet ak nag ñu wax ci li ñu fi indi sa résultat analyse yaa ngi nii baax na de
uff sant yàlla
waxal sa jëkkër moom tamit mu ñëw jël si ay résultats analyse am
bi madame Sangaré di dem Kossa profité na ci ñu daf koy gunge bëgg koo jaayaale bijou yi madame Sangaré bañ façon bu civilisée merci Kossa lu jëm ci takkaay moom wóolu ma ci ku dul sama tëgg bi Kossa ko jéppi waaye waxul dara lu mu nar a wax tulli nag Kossa dugg na ci centre de santé bi xëcc Aïcha sage femme ni moom ci biir pharmacie maternité bi ñu tëju ci biir defar kit d'accouchement yi ñu sàcc def ko ci seen suufu blouse génn ndànk pour jaay ko ñi indi jigéenu wérul yi Korsa Korsa. ah yaa ngi ni man wër naa la partout. yow Talla lan la. waaye lan la mooy dafa am benn jigéen bu lay seet nanguwul joxe turam man dalu naa sama liggéey voilà femme baa ngi nii.
madame Kaay.
mu madame noo def.
maa ngi fi rek.
indi laa suma doom dafa ëmb. ma bëgg nga jàppale ma.
ba am nga xaalis rek.
xaalis bu baari laa ci yor. mon avortement bi ñaata la.
chut waxal naa ko léegi da nga fi bàyyi sa coordonnée parce que naa la woo dégg nga.
danaa ñëwaat.
kër Rokoba jabarkat baa ngay daagu ni faru ja mel ni fa la juddoo emaade mi ngi naan rekk bouteille bu jeex mu naan beneen taala du wax dara ndax bii yoon Rokoba bàyyi na emaade mu tëdd di jël garabu woon te moom taalam hôpital lay liggéey
Rokoba wax na dëgg nag sëriñ bii àdduna bépp xam nañ ko lii moo gën ci goroom lee moom xam naa ne du dem di dee ci hôpital bi nga xamante ni guerre rek moo fay dox.
li ma ci xam daal mooy kuy faj lépp woowe ko yàlla moo gën te loolu nag benn nit mënu ko dama ne ay truand lañ rek.
eh faj lépp yàgg na fee am waaw respecté leen suñu aada yu waay su ne mën na faj lépp daa fekk mën ko wane na ko feneen fudul fii.
may leen ñu jàmm de xawuma kenn ku mën a faj jàngoro yëpp Rokoba mii war nañ wax ak mooma jigéen ju am juróom benn fukki at ak juróom bàyyi ponkalum góor ab jabarkat mu lëmbe këram man daal sama xel tey na ci wax naa eh eh jox leen cër sunu aaday maam yi waay man ay reen mu mës di faj respecté leen ñu waay seen wax bëri na trop
sama tànk yi ay menentaan moo si nekk mama Rokoba dama bëgg jóg Emade sëriñ bi nee na waroo jóg dama sonn ci lal bi dama bëgg duma ko wax dara foog ma jóg
sunu aadam mooy woo ko mu faj ñu fii ak mu ngi fii li mu wax mooy am
foog ma dem centre de santé Ratanga ñëw dàkk faj demal tëddaat bi yoon moom Talla d'accord na ak man pour nga noppalu
lali noppi leen
ah bajjen déedéet Emma de mënu la wax ak yow téléphone te mënuloo koo seet si
bi Rokoba nekkee ci waañ wi di togg jabarkat bi dugg néegu Emade jël abu ak rakkam ji doon nelaw tëral ko néegu Rokoba mu dellu si tëj néeg bi ak caabi jëm ci lal bi ndànk tàmbalee ray tànku Emade mu tëb ci kawam war ko Emade yeewu fekk jabarkat bi tëdd ci kawam bëgg koo siif
mu ngi nelaw te moo ci dàqati macha allah macha allah ay ay. walla walla.
du dara du dara du dara man maa koy opéré déedéet du dëgg war naa ma ma jaxasoo ak moom ngir ñaan yi mën a nangu. na génn papa na génn na génn. damaa war a dugg si moom ngir jine yi génn. ubbi leen buntu bi.
man daf lay wan.
macha allah alhamdulilah. Roqaba damaa bëgg a sangu. ngir génne si sama yaram jinni yi jóge ci kër gi yu bon yu dëkk fii xeex leen dina laaj fan yu bari teel ma lii roxoba xiif naa te foog ma lekk sama doole yépp des na si xeex bi ma doon xeex ak jinne yi ah ah ah ah gaawal waaye sama doom su ko dóor mu ko dóor su ko dóor dóor mu ko dóor dóor
dinaa la toggal sup boo dootul fàtte ba ba ngay dee
macha allah
docteur man lépp sup bi pare na na si jàmm bari
macha allah waay lii kenn mënu koo lekk xorom rekk la léegi nag xam naa li tax amoo jëkkër
waaye yéen yow yaay kan yow dangaa yaakaar ne daal dinaa la bàyyi nga ñëw di ma commandé sama biir kër man ada
aada neewu la nga di ma ñàkk kersa rawatina ak sama biir kër yow xam nga li ngay def jigéen
maam yi baal leen ma ci lii may bëgg a def ah, nga ñëw sama biir kër di géex di siif sama jabari doom nga bëgg ma gërëm la ay ca ca biti yaag say bagaas yu ca xaj eh bàyyi ma bàyyi ma màggatum seytaane bi nga doon di nga al ko yow jabar bu bon bi nga doon yow yaay alku yow moonte li nga togg neex na de maa lay tooñ rek dinaa la alak way dikum dikum yawit daakum daakum yawit tukusul tukusul yawit tooke tooke yawit tukum tukum di nga yawit torox yow yaay torox di yow nga torox yaay torox ba tottoro yow magum torox taange bi nga nar a doon tottoro di nga yow perte yaay yow torox ba tottoro yow yaay torox yow fokk ma yóbbu Emma de dëkk ba mu faju foofa faj ko ci cosaan yi mën nañu seen liggéey dinaa waxtu li sama jarbaatu mu jël otoom ñu ànd ak dëkk ba Emma de dangay dem dëkk ba ngir yàlla yóbbu ma centre ba mama Rokoba.
dëkk ba laa wax di nga ma wax loo rek
Emma de lu ko dal fokk ma gaaw dem seeti ko ni sama doom laa ko def ni mu wéete xaw ma lu tax ma koy woo du jël téléphone bi te rokk baa bëggul ma wax ak moom ramatu mi gën a nekk xaritam sax mënu koo gis assistant tamit bëgg naa xam ci lu mu nekk ku am fit la waaye deewu Aminata daf koo daaj wax yi ko Korsa sosal gën koo tax a jaxasoo ana ko mën a dékku tawu ban saa yu Julien ak Rachel ndawam si jaaree ma laaj ko ko mu yëngal boppam dem sama bopp tëju na lool ci xale bi
bajjan mbaa du yéex a àgg ci MAD fii ci centre bi nag fu ñu jëm ak Korsa assistant ndax dafay wéy di tëju si biir néeg ba rek te du tey lay am de mais doo dellu bitim réew pour bàyyi sa métier duma ko mën a nangu kaay gunge ma ci marché bi sax ñu waxtaanaale Cuut yaay damay takk samay bagage waay bàyyi mi ngay def
nañu topp épisode bii di ñëw ba xam fu muy mujj c'est la vie di théâtre rajo bu leen raes jagleel ki ko tëggaat te jiite artistes yi di Massamba Gueye ki def réalisation te tataankat yi di Tidiane Chang script Aïcha Ndiaye assistante réalisation Marie Diallo chargé de production Abdoulaye Slimane Sy montage mixage Prod Events